mais dafa am benn problématique bu ma xaw a jaaxal la pêche artisanale représente près de quatre-vingts pour cent euh, pourquoi ñuy euh, pointe du doigt ni ñuy du doigt euh, les accords euh, sur les les accords avec l'Union européenne ak euh, les licences octroyées au aux aux aux navires. soxna si man le gouvernement la il s'est fait élire sur des promesses. Hmm. dañ ne bu ñëwee dañu dagg accords yi dañ ko dagg. parce que bu ñu toogoon parce que dem nañ ba xayma ko waxtaan ak suñu partenaire euh, quand on parle de liste euh, d'accord de pêche on parle de l'Union européenne ñun amuñu accord de pêche ak Chine amuñu ko keneen est-ce nag c'est parce que bi may ñëw sa sa télévision oto bi ma dawal ci benn nationalité moo ko defar que man ñooñ laa amal accord les bateaux là defaruñ ci benn Sénégal ñi fi nekk y a 30 ans 40 ans seen bateau bitim réew la jógee y a des jeunes yu ñafe ci port bi qui ont des aujourd'hui bateau nga am ko Chine moo gën a yomb booy defar lu bateau Chine nga jëm comme ni ngay defar la yu bëri Chine nga jëm commerçant yi fii ju ci bëri Chine lañ jëm loolu moo waral ñu naan bateau chinois mais y avait une pratique bu ma doon que j'étais en train d'assainir euh, de ce point de vue là et que ñoom ñoo ko dénoncé euh, voilà les accords moi j'ai permis à un Sénégalais de retrouver ses 51 pour cent dans un dans sa société par la pression que je vais à mettre et le fait que j'avais refusé de pourquoi les gouvernements mënuñu euh, casser ces de pêche avec l'Union européenne mais c'est la liberté des gouvernements je veux dire euh, l'Union européenne encore une fois dama ne euh, avant ça portait sur différentes espèces qui notamment intéressaient les Sénégalais ma jox l'exemple on nous a comparé ñu ne Union européenne nangam lay fay Maroc Union européenne nii lay fay Sénégal euh, c'est ça la manipulation parce que au Maroc Union européenne espèces yooyu ñu bëggul ñu laal fi moom la fay napp c'est c'est des quantités différentes les espèces ici on ne leur permet que les espèces tonidées qui sont qui migrent en haute mer yoo xam ne la plupart de notre flotte ne l'atteint pas c'est-à-dire pêché wu ko mais loolu terewuñu ñuy développer parallèlement une industrie tonnière au Sénégal aujourd'hui des sociétés comme la Scasa mais quasiment toute sa production aujourd'hui est vendue aux États-Unis ton bi ñuy defar ñu seen armement fi la nekk ñoo leen di jox licence ñoo leen koy signal donc affaire doo ñëw rek voilà mais da ngay accompagner ce secteur euh, say say arme armement euh, ci wàll woowu ba nga xam ne tey peut-être quota bi ñu am le quota c'est l'ICAT au niveau international que ça se détermine c'est pas Sénégal ICAT moo naan Sénégal sa quota ci ton yi nga xam ne ñoo ko bokk moom parce que day migrer dem fépp lii la bu ñu demee ba am armement boo xam ne mooy mën na consommer quota boobu yëpp mais en ce amuñu intérêt boobu amuñu benn mais aujourd'hui dix mille tonnes bu ñu jox Union européenne euh, qui en en moyenne ne les pêche pas pêche pas les dix mille tonnes là aussi j'étais en de regarder parce que dans la pêche quand même parfois <laughs> il faut nga dugg ci biir euh, comparé Euh, à comment ils ont ce qu'ils avaient au Maroc c'est n'a rien à voir comparé aux cinquante mille tonnes que la Mauritanie nous donne nous <coughs> sur des espèces que nous consommons ça n'a rien à voir donc un État c'est un ensemble à l'époque quand je parlais de ça il y a un collègue qui m'avait dit à juste titre mu ne ma ok Alioune euh, les accords de pêche tu dis ça ne représente rien machin euh, tu, les annules tu, nous pousses à annuler mais l'Union européenne euh, l'Allemagne ne pêche pas un gramme de ton chez nous. Mais l'Allemagne vient de nous faire un don de 60, <laughs> voilà, de 60 milliards. C'est ça l'Union européenne. Donc, il pas être dans, dans, voilà. Dans le populisme, dans, le populisme. ba demee nga jural. Euh, dafa am une une une réalité économique bu sous-tendre euh, la signature de ces accords loolu nga bëgg a wax. dégg nga la la la l'ambassadeur de l'Union européenne maa ngi koy lire moom muy naan euh, ñoom li ñu fiy pêché en moyenne ça représente de 1 pour cent. de ce que nous débarquons ici au Sénégal les statistiques quand je quittais là-bas les débarquements au Sénégal moo tax bu ñu naan wax bëriwul dama ne non il faut ñu il a des choses à régler je suis d'accord. parce que c'était ma ñëw ci parce que c'était 500 000 tonnes boo xoolee wàccul kon ça veut dire que globalement jën am na mais globalement ñi ko gën a soxla nos pêcheurs artisans ont de plus en plus du mal à avoir ce qu'ils veulent parce qu'ils sont plus nombreux la cour d'abord dans le truc nous parle nous, nous reproche le le gel de licence de la pêche artisanale loolu moo ko indiwoon parce que on a atteint les vingt quatre mille pirogues on n'a que sept cent kilomètres de côte il y a problème euh, donc euh, ñooñu quand même c'est quatre vingt trois cent li ñu fiy wàccee ci jën c'est la pêche artisanale ñoo koy wàcce donc ça veut dire que c'est l'acteur principal sur cette mer laaj ki impact sur cette ressource mais exportation bi dafa bëri maanaam jën boobu quatre vingt trois pour cent boobu li ci dem Mali li ci dem Mauritanie et cetera. li ci dem Côte d'Ivoire même Côte d'Ivoire dafa bëri. Euh, et quand je visitais le marché de Tamba parce que on, il, on, il était ouvert je vais j'étais avec des mariés ñuy def lépp ma ne ko mais yow boo yóbbee sa camion ba Mali ñaata nga jaay kilo bi mu wax ma ko. je m'étais rendu compte que il avait quasiment mieux en s'arrêtant à Tamba et en vendant cela à parce qu'il avait moins de charge et il avait quasiment le même prix. mais est-ce que solution bi nekkul ci. ñu wàññi le niveau des exportations parce que boo demee ci quai bu Wakam bi fii. ça aussi dama euh, moi je vois des des gens yoo xam ne euh, dañuy indi jën yu baax. Mhm. mais c'est pas destiné à la au marché local. Euh, tout de suite dañu koy préparer euh, defar ko pour yóbbu pour ah. yóbbu ko à l'extérieur peut-être que ça ça ça vend plus euh, là-bas waaw il faudra ñu xool ba ci loolu mais bu dee armement bi industriel yi maanaam les cent vingt neuf navires aujourd'hui on parle de cent trente deux bu dee ñooñu la la grande majorité ou quasiment l'exclusion il y en a quelques-unes qui ne le sont pas étaient des entreprises franches d'exportation parce que économie yi ñii nga xam ne ñoo yor réew mi tey te ñu ci bëree nekkoon dans les régies financières xam nañ loolu ces entreprises franches euh, financières euh, entreprises franches d'exportation euh, seen statut moo leen doon obligé ñu exporter ñu quatre pour cent de leur production parce que c'est la pêche était le premier pourvoyeur de devises de cette économie. Parce mais de à 1,5 pour cent maintenant euh, comme contribution au au au PIB c'est c'est problématique. Là, vous parlez de PIB je vous parle de devises je vous parle de devises euh, xaw ma mais devant l'or et tout ça c'était la pêche peut-être changé na parce que mais parce que une économie cette économie a besoin de voilà des de positions en devises c'est un ensemble c'est pas voilà c'est un ensemble on disait 17 pour cent s'il y a à peu près 10 pour cent qui sont entreprises franches d'exportation sur sur donc 10 pour cent de nos de nos de nos captures ça pouvait se défendre parce que de l'autre côté ça nous règle des problèmes économiques extrêmement importants parce que dans nos échanges ça ça beaucoup donc mënoo ñëw rek comme ça Alioune Ndoye là avec sa baguette magique nga ne tu déstabilises cet écosystème euh, voilà da ngay xool le pour le contre et les conséquences parce qu'un gouvernement c'est pas toi c'est un ensemble donc Euh, pêche dafa sensible parce que ay bakkan la euh, ñi ciy dund macha allah euh, donc waruñ ko gérer par populisme man am na lu ma tàmbalee woon xam leer na ma ni leer na ma bu ñu buñ ko eggale woon je pense que après moi ñi topp ci loolu lañ nekkoon mais le secteur on allait régler énormément donc jàpp nga ne quand le gouvernement promet de rompre tous les accords de de de de de de non parce que l'autre am am am nañu des accords avec la Mauritanie. mais qui ose rompre l'accord avec la Mauritanie. voilà c'est-à-dire de rompre moom loolu laa la de rompre les accords de de de xam nga lan la euh, obteniroon. Euh, xam nga c'est un bu ñuy jël. xam nga lu ma obtenir Mauritanie yéen da ngeen di fàtte man nag damaa weex donc nag xam nga il faut ngeen sangat ma tuuti parce que bi ma ñëwee pêche j'avais trouvé les pêcheurs de Guedda si étaient restés xaw ma ñaata mois nappi Mauritanie parce que y avait ils, ils avaient pas, il y avait des problèmes de licence qui n'étaient pas payés et qui refusaient de payer, notamment un trimestre. il y avait des problèmes de pénalités énormes. loolu la njëkk a réglé foofu. bon ça c'est l'anecdote maintenant on a quitté le gouvernement le président mauritanien j'avais eu la chance il était en visite ici c'était le sommet de la sécurité là qui se faisait man on venait de me nommer je mois de novembre mu ñëw fii par entre gens il était dans un m'a on m'a permis le voir il m'a dit ça y a pas de problème nous sommes des frères les deux pays là vous venez. donc c'est inimaginable de rompre les accords avec la Mauritanie. mais foofu laa bëgg ñëw la Mauritanie nous donne à pêcher cinquante mille tonnes nous qu'est-ce qu'on donne à la Mauritanie à l'époque il fallait payer euh, quinze euh, euros je crois le président Macky Sall les pêcheurs di c'est cher il dit nous on prend en charge les cinq euros mais vous payez les euros mais accords bi ma bi ma bi on est passé à 500 licences et à l'époque balaa moo fay jógee euh, c'était zéro franc c'est-à-dire que le président mauritanien a accepté d'enlever les le coût des licences paraît-il que c'est revenu parce qu'il y a eu des bon mais c'était des acquis énormes loolu di nga ko di nga ko dindi parce que say mbokk yi ñoo ci liggéey wàggeen dal ñooy liggéey Mauritanie yow boo nee da ngay rompre loolu te jéemoo arranger plutôt conflit yi am le problème des pénalités et cetera mais ça veut dire que tu te mets toute une population aujourd'hui tu la mets au chômage c'est ça la vérité kon xam nga ko kenn du ko laal beneen accord bi c'est avec euh, je crois les îles là euh, en face là Cap Vert. le Cap Vert Cap c'est pour permettre à certains de nos armateurs il y en a deux ou trois ou quatre je sais pas justement d'attaquer cette pêche cette pêche tonnière donc loolu aussi ñun ñoo ci am avantage on a des accords on est dans une des organisations avec euh, la Guinée, la Gambie, etc. Parce qu'on a des œufs ensemble qu'il faut arriver à gérer ensemble. Et c'est ça la difficulté. maanaam yow da ngay rigoureux Sénégal mais bu dee euh, y' a pas même chose ci frontières yi mais les navires là ils ont des technologies aujourd'hui qui leur disent le banc de poisson est à tel endroit dañ koy kar rek ci frontières yi kon yow <laughs> dara du jàll dara du dugg maintenant si notre flotte est trop importante Euh, sama maa ngi koy nuyu laa suñu benn nijaay ba dundoo dana wax ni géej gi kon ne mooy li ma yoroon à la fin mooy la polition ah géej gi ënd comme ni mu mel nga xam ne tous les abris tous les trucs sont son aujourd'hui détériorés mais moo indi soli situation yi nekk donc euh, moi je pense que en tout cas ils ont pris l'engagement mais ils n'ont qu'à l'exécuter ils n'ont